يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا ويا كامل الأنوار وال
فمن البحور اخترت بحر الكامل لكماله في مدح شيخ كامل الحاج عبد الله سمال نانا شيخ تبحر من بحور موايب nga ni شيخ تبحر El Hadj Abdou nee na Cheikhul Sëy la boo xam ni تبحر géeju la من بحور ci géej yi موايب ci mayu yàlla ya لدنية ñu ko kawe ومعارف ak xam-xam ya وفضائل ak ngëneel ya موي بحر الشريعة mooy baaru sharia mooy géeju sharia والحقيقة ak xaqiqa فلكها شم.
ملوحنا لقعر بحرنا شيخ الخليفة بحر العلم والعلم وتكوثر شريعتي بحر العلم والعلم فمن شيخ الخليفة بحر العلم والعلم كمن شيخ الخليفة بحر العلم والعلم كمن حامي شريعتي هدينا لخير سبل حامي شريعتي هدينا لخير سبل ويا تتيقني من قد جاء يس- يسألها عن ديني لعلكم الواجابي لو دفن الواجابي لو دفن الواجابي لو دفن الواجابي لو دفن الواجابي قال شريعته قال شريعته تقول قال شريعته ما يقدم بمرة ألف ما قال شريعته ما يقدم بمرة ألف ما قال شريعته ما يقدم بمرة ما يقدم قال شريعته ما يقدم بمرة قال توك توك إن شاء العفيف يخل لسنها أحمد المنصوص ويقبل لسنها أحمد المنصوص ويقبل لسنها أحمد المنصور رأيك بغير وسن الله أحمد المنصور رأيك بغير وسن الله أحمد المنصور رأيك بغير وسن الله أحمد المنصور رأيك بغير محمد المنصور سي سباي حاجة إبراهيم سماري أنا لا منصور قل ما تشاء شكرا لخالقنا فالله خصكم ما هو مشهور منصور قد نلت ما لم يحوي أحد لزوركم جدكم للسعي مشكور عيش سالما ومعالا نخبة السلم والقلب بالنور والأسرار مخمور سباعي قالوا شريعة ماي كابتن بمايك كلا قالوا شريعة ماي كابتن بمايك كلا قلتوك دوبتا إن شاء العزيز قالوا شريعة ماي كابتن بمايك كلا قلتوك دوبتا إن شاء العزيز
waaw waa Aziz nga ni baaru shariati بحر شريعتي nee na mooy géeju sharia والحقيقة géeju xaqiqa فلكها mooy gaa mooy mooy capitaine ba ملاحها moo koy dawal في قعر ci xóot-xóot بحر هائل ci nga xam ne ku ca dugg dana daagu wala nga daanu xalifu duggee dina wéy ànd ak i gaayam من يستمد sam sam الحاج عبد الله oho سبحانه سبحانه xaami shariati xaami shariati haadina li xayri zubal boobu laa wax
لخير سبل nee na mooy gée كلمة aha بحر العلم nee na Aboubacar si mooy ba mooy géeju sharia والحقيقة mooy géeju xaqiqa والحكم ak géeju may حامي شريعتي moo aar sharia bi ba kenn laalu ko هادينا moo nuy gindi لخير ci سبل gën ci yoon te mooy aljanna ku ànd ak moom def li ma wax ba dee da nga dem aljanna jaaxal xaaja baay si baari neena sëriñ Babacar Si aqul lakum wa ma qaala mufradu asrihi
Cam.
abu bakri almifdaalu xayru xalilati mooy gën ci xalifa ayaa mukrima diifaani yow mi nga xam ne yaa teral gan ñi إني لضيفن man El Hadj Abdou Aziz maay sa dayfan إذا عزني مقدار moo tax
إذا عزني مقدار moo tax El Hadj Abdou Aziz yàlla na ko yàlla fayal.
آمين يا رب العالمين wallahi li mu wax nii taalibe yëpp ku fa man seen cofeel teg ko ci balance fab cofeelam ci xalifa teg ko ci balance cofeelam dana wat nangu nanu ko ndax li mu ko wax kenn waxu ko ko dañuy tuus lan te baaku ko bil am daima bakalo si tuus la te baaku ko bil am daima waru tuus la te baaku ko bil am daima kaya yo da sajiga ngi tata si bit madi mor ngi ko jaru min al basit amati bil karin al mara bal wawafil rajasin bakul tamama صبر بمي كمان كتب بمي معصر بمي متربت بمي جيتار كتب بمي فن فن لي لا تنور بلن كخين لن بلن ملخ بلن تمي بلن تنجمي تبلن من بوتي وي يكش على المصطفى علم فاعلا مصطفى علم فاعلا مصطفى علم فاعلا مصطفى علم فاعلا بسيطني لك يومي تجبا اقسم رعتي خني انه ممرك مي مايك قدر ديدانه ديدانه لختك ديدانه لختك ديدانه لختك ديدانه سكدان ديدانه سكدان ديدانه سكدان كيرك ما ما تفرفل الجمي مي كنت فردورس تكن دولاري فرلن جمي مي كنت فردورس تكن دولاري أكرم به إنه حقا لخير وزر بريال مين في مين خلني تلعب بريال مين في مين خلني بريال مين في مين فلسليت يزور بريال مين في مين بريال buleen xuloo te buleen ŋaayoo bi indi naqar xalifatu cheikh wal muxtaar yaa fi di mer yaay fajal dinaayo daanam te ñepp la war muxtaar yaa fi di mer yaay fajal dinaayo daanam te
kon fa tabarakallahu jërë ngeen jëf waxante ku tax nga gën ko war la gën am loo warul woon a am man loo warul woon a man loo ko defal ëpp na ko waxumaa di ko jar te dama wax ni dama wax ni rang bi yàlla rangale jullit rang bi yàlla rangale jullit yi ngir muhammad lu ko jullit yi defal ci teraanga fa ñu ngi sax bor ba dama ni dama ni rang bi yàlla rangale jullit ngir muhammad rang booba ku ci yàlla yóbbu loo defal muhammad ëpp na ko waxamaa di ko jar déggal yàlla walillahi al izzatu wali rasulihi walil muminina walillahi alizzatu wali rasulihi walil muminina izzatu llahi alwalayatu hunalika alwalayatu lillahi alhaq wa izzatu rasulihi alkifayatu inna kafaynaka almustaziina wa izzatu almuminina الرفعة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين waaw ci maanaa ba mu nee taraat aw rëdd yàlla dafa taxaw fii fa Muhammad teg fi watam fa jullit yi teg fi seen wet mu ne wal izzatu tedd nga lillaahi ñeel na yàlla wali rasulihi ak yonentam wal muminina ak way gëm ñi waaw tedd nga yàlla mooy lan tedd nga yonent bi mooy lan tedd nga way gëm ñi mooy lan waay waay fóore wuy leen ma waay waay gaañu wax leen waay waay lu ngeen xam waay izzatullahi tedd nga yàlla alwalaayatu lépp di def lépp te kenn du ko ci dimbale maa la ko wax pal gi méngoo gi lu ko neex def du laaj kenn digal te lu mu def mu wéy mooy izzatu yàlla wa izzatu rasulillahi alkifayatu inna kafaynaaka almustahziina muhammad mbalee yi xaañ yi yàqal yi yépp duñ la mënal dara man maa lay fegu maa lay boot maa la uuf ku lay yéegeeg ñépp a ci bokk yam kooku izzatu muhammad wa izzatu almuminina arrifaatu wa antum yéen way gëm ñi laalaw na yéen a kawe ñépp in kuntum ndem nekk ngeen muminina di way gëm yàlla dama ne sango boobule lu ko waaye defal ëpp na ko waxumaa di ko jar tayit sallallahu alayhi wa sallam fàtte na ndeyam ngir xeetam fàtte na ndeyam ngir xeetam fàtte na doomam ngir xeetam fàtte na xalimata mi ko nàmpal ngir xeetam dama ne sango boobu lu ko xeetam defal ëpp na ko waxumaa di ko jar lan la wax yaa rabbi laa asaluka bi aminati allati wadaat nii wala fatimata binti wala xalimata allati ardaat nii wa innama asaluka bi ummati ummati ummati ummati yow yàlla man muhammad ñaanuma la ngir aminata mi ma jur ñaanuma la ngir fatimata mi nga xam ne maa ko jur ñaanuma la ngir xalimata mi ma nàmpal maa ngi lay ñaan ngir sama xeet sama xeet sama xeet sama xeet waaw xeet woowulee bu fonkee muhammad màggal ko wàcc na moo tax yéen waa daayira bi yéen waa daayira bi gont taxani far ñay teel a jóg du ko maye de daba ni gont taxani faru ñay teel a jóg du ko maye lu koy maye chance waxumaa ngeen wéer ko nag ci Cheikh Al Khalifa te nag koo gis bu ne ci lu baax ka nekkul ci lu baax noona ma waaye maa ngi dox ñaari exemple dama leen wax léegi ni ndegam garab garab moo mën a tiim lëf wàllu ko te laalu ko aw rab faj aajooy ka mu xool te laalu ko masama Cheikh Al Khalifa masama El Hadj Malick waaye laaj leen garab gi gën a waay fabal sa bañu waarug ndox nga yedal ko ci taatu xay ba jant bi so booy ñam muy weex te da ko tiib rek amuhu day fari ñëw xool doomam rek mu regg kon ku wéer kii muy muy sa baay abdulaay si woon dëgg abul maana aqwa min abil xissi lan yëlli jëmbale ko de samaa yi man la mu yulal ma ni ku ñu jurul ñaari yoon dagg ci melu ko samaat sa neeg sa baay di lay jur nga dem ci ngëgg bu toll nii di Cheikh Al Khalifa mu juraat la kon fa tabarakallahu ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi di sant nag ci coono yi di sant ci jëf ji soxna si nag moom mën na koo fay ndax wax dëgg yàlla sama séddoo du séddoo Abdul Aziz du séddoo Cheikh du séddoo du Sëñ Moustapha du séddoo kenn du séddoo Mouhamadul Mansour rek la amul keneen maa ngi moom ca daara ji ak lépp ak sama lépp fa tabaarakallah am na bayit bu ma doon nettali keroog yooyu jamono daara ji neexul boo ndékkee di xalaat añ boo añee di xalaat reer am sama benn waay bu tumuraanke fu ne mu dugg fa ma ne ko yaaman xadaa raid al xayraati wa niami fa qif ala baabi ummil xayri taxtarimi mooy yow miy wër di sàkku ay yiw ak i xéewal bu sonn taxawal ci buntumul xayri rek loo bëgg mu jox la ko nga door ba gàtt dem sa yoon booba yàgg na lool booba du léegi de booba de moom héehée kon nag si fa tabaaraka la ñu lay sant bu baax ci sunu wàll di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan yàlla may la wér yaag say bokk yépp nga yàgg a taxawu yàgg a taxawe taxawu sax baax na waaye taxawe am solo taxaw taxawu taxawe taxaw taxawu taxawe taxaw taxawu taxawe taxaw moom da ngay taxaw ni yëngu rek lu dikk baax na lu dikkul baax na loolu ñëpp mën na ko taxawu lu la war danga koy def lu war keneen nga defal ko ko ko koy taxawu taxawe nag ñawoon nawoon lawoon fa woon rek kon fa tabaarakallaa suñu xol sedd na te nag sëriñ bi ak cant mën la ñàkk damay wax ne ak cant bu doon jomb ci ñaari diggante kon yàlla sant jaam amul yàlla moo war ñàkk amul yàlla jomb na nit ki amam warul ñàkk amam jàmbul ci jaay sañ ko bind te ba jaay isan maa qabila lamrayni sim li darari wa nadari kullun xusim وجوب الضرر وجوب النظر جواز الضرر جواز النظر لاستحالة الضرر لاستحالة النظر أنا لم أكن ثم كنت فكل من لم يكن ثم كان فهو حادث وكل حادث فهو محدث أين محدثك تبارك وتعالى فوق الأمور kon bu yàlla bindeeb jaam ci mbaaxam def ko bi yonent ci mbaaxam nattu ko muñ loo ko nattu ba ci mbaaxam wala ba di ko gërëm naan niamal abdu innahu awaabun eskay sama jaam bee ko baax ndigam yàlla mën a sant jaam ma sama jaam ak morom ma fa tabaarakallaahu yéen doomi xalifa yii nag ci musóor yu baxa yeeg mbubb yu baxa yi yéen doomu alaaji abdul aziz yii yéen sët alhaaji malik yii li abdul aziz wax lépp ñaanal leen ko warlu naa leen ko yëf yi dana dox baana baana bi ku bëgg jabar ku bëgg a dem màkk ku bëgg a tabax ku banque ku feebar ku joote lépp dana faj incha allah gannaaw loolu nag gannaaw bi leen ndokkeelee ziar leen dama doon dëgëral sama waxu secrétaire ndax li ëpp ci bésub tey bii moom laa ko jox ndax daa fekk ma gàmmu ziara ba fa tabaarakallaahu moom nag mu nujj nujjul ma la des léegi nag ah am na lu may fàttali nag te noo ko bokk dafa am gan koo xam ni dafa jóge ndar jëm si ndakaaru xam naa koo gis nag ni nga tollu tëngéej te nag gan gu foore ni moom mosu am ci gan yi ndax ganu yàlla ganu yàlla la ganu yàlla lu ko gën a foor ma leen di fàttali nag ne gan googu bu jóge woon ndar jëm si Dakar ak si ne Tëngéej mooy lan weeru koor ah ah coono yeeg këtt këtt jeeg xerte geeg loo am joxeeg luñ la tënk xeeb ak lépp diina ji rek diina ji maam ji ba bàyyi ba ko ñu ne ci rek weeru koor nag mi ngi ñëw weer la woo xam nag ni tere rek a ci war Muhammad nee na ramadaanu qalbu sanati Muhammad nee na weeru koor mooy xolu at mi bu yëwénee sa lépp yëwén kon nag xol du màggat damay wax ni sootu yaasin mooy xolu alquran weeru koor mooy xolu at mi cheikh al xalifa mooy xolu sëriñ si comme xol du màggat nag ca dëgg-dëgg nag woor fukki fan ñëw ba ci digg ba ni weer yu màggat na ah aha du màggat ah yonent bi nee na awalu ramadan rahmatun wa wasatu ramadan maghfiratun wa axiru ramadan itqun min annaari Muhammad nee na fukki fan yu weeru koor yépp yéen ba ne yàlla la fukki fan yi ci digg bi njëggalu yàlla la fukki fan yu mujj yi gore la ca safara ah kon loolu defe naa màggatul te yonent yàlla Muusa dafa ni yaa rabbi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haythu asma'tani kalaamak moo yow yàlla man Muusa ni nga ma terale ndax am na benn doomu aadama boo terale noonu ndax dégg naa sa wax ca jabalu toor yàlla ni ko inna lii ibadan uxrijuhum fi axiri zaman wa ukrimuhum bi chehri ramadan ana aqrabu ilayhi minka inni kallamtuka bayni wa baynaka sab'una alfa hijab ida saamat ummatu muhammad wa abyadat shifaahuhum wasfarat alwaanuhum arfau tilka alxujuba waxta liftaar yàlla ni Muusa am na jaam yoo xam ni maa ngi leen génne maa ngi leen di génne ci mujj jamono ñu bokk ci xeetu Muhammad ñooñaa ma la jege ñooña laa gën a teral ndax waxtu woo xam ni xeetu Muhammad ndax ba may wax ak yow yonent yàlla Muusa juróom ñaar fukki junni kiiraay doon na sama diggante yow te waxtu woo xam ne xeetu Muhammad woor na ba ngoon jot dana buri kiiraay yooyu yëpp daje ak ñoom kenn du lekk sama intermédiaire maa xeetu Muhammad ñooñaa ma la gën a jegal te nag aljinaanu yastafiq na bi arbaati nafarin saaimi ramadan wa xaafidi lisan wa mutimi ljiran wa taali lquran aljana nee na ñeent buñ ma bëggee bëgg naa leen buñ ma bëggul bëgg naa leen buñ ma soppee sopp naa leen buñ ma soppul sopp naa leen ñu ne ko ñeent ña ñana munu way woor weeru koor way lele di togg di jox miskiin way jàng alquran way wottu seen làmmiñ bañ a jëw bañ a wax lu bon bañ a wax dara ñii buñ ma soppee sopp naa leen